ay ay nit ñoo jël leer bi këpp suuf moom mu ñëw li alquran wax ah masalul lazina yunfiquuna amwaalim fi sabilillahi ka masalul habati am bata de xam nga dañ koy wax si wërsëg mais Ousmane Sonko wërsëg boobu lee indi ñëw indi ñu ko ah. parce que moom nit la koo xamante ne boo gisee nga ne Ousmane Sonko boo jaakaar ak moom sax doo gëm ni kii mooy Ousmane Sonko boo déggee turam nga gis ko kon ñun waa Casamance dañu war a mbooloo jàppale Sénégal jàppale suñu bopp ngir ñay Ousmane Sonko sikkali Sénégal boo imaginer nii lépp yàlla ginnaaw yàlla suñu indi lu dul Ousmane Sonko ñu ngi sant yàlla di gërëm suñu borom mais yéen boobu ñu leen sant di leen gërëm. ah déjà TV bu Ahmed Aïdara. Ahmed ñëw na ana Ahmed Ahmed moo Ousmane Sonko ànd mi ngi doon di ñëw. voilà kon léegi mun naa wax eh, ñuy sant Ahmed Aïdara du nit ku bon. dafa doon nit koo xamante ne iñaan nekkul si moom lépp loo xamante doomu aadama won na ko da koy delloo moom moo moo ne Ousmane Sonko mooy tuuraay dëmm tey wax dëgg yàlla tuuraay dëmm la de. cuuraay dëmm la ñun foofu la merci beaucoup sama gars yi mais gars yi maa ngi leen di nuyu waaw ñu ngi lay fay noo gisee poste kontaan rek moom rek la xaar ins nii mais naa mi ngi waaye moom la ñuy xaar mais xam nga ne Ahmed Aïdara la àndal ah te Ahmed Aïdara la àndal de loolu kan la ma ànd moo xam ne ay dara ñoo ànd tey de. kon neex. tey tey fii toj. fii dana toj rajax. moo tax la ñuy ah, ñu ngi koy moom la ñuy xaar rek. si na moom ah non Sonko rek lañuy ñuy topp. mi ngi ñëw. moom kese la ñuy topp. day changé yére rek mi jeex na. grand maa maa ngi lay fay. mais grand loo yëg ko ba sonn ñun instant bi si yaram dafa tàng. na gaaw a ñëw def discours am xam na laal gars tuuti rek ñu bég mobilisation bi lan la. non c' est une mobilisation exceptionnelle jamais vue te Ziguinchor incha allah va battre le record de toutes les mobilisations au Sénégal. gars yi doon wax naan gars yi dañu koo weddi nag. non kenn du ko weddi parce que yéen yëg gis ngeen ko kan moo koy weddi kenn du ko weddi. est ce que du cuuraay bi gars yi Ahmed Aïdara di wax. ah Ahmed Aïdara su dox cuuraay bi Ousmane Sonko. ah loolu moom suñu secret la. parce que xam nga ne Ahmed ñëw na am na. Ahmed Aïdara xam nga ne ñëw na. Ahmed Aïdara. moom Sonko ànd. ah bon nee na tey dafa bëgg tëj fii. borom borom borom nu mu koy waxee sax waaw ah fukki dërëm rek lay jar. kilifa gi sant bu baax sant alhamdulilah. Sonko de xam naa ne man maa ngi jógee ba Vélingara peut-être les gens boo ma connaître peut-être waa Vélingara xam nañ ma bu baax a baax. Sonko fan nga nekk si Vélingara maa ngi Nasroulaye laa dëkk. Ousmane Sonko moom da réew mi moom heure ni jamono ji nii moom fu mu ne ak fu mu nakari moom moom réew mi moom. waaw te ñun nag wax dëgg yàlla ñun fu ñu woo dañ fay def incha allah. wax naan dañ koo weddi est loolu loo ci wax ñu weddi ko kan moo ko weddi les preuves sont kan moo ko weddi kan les preuves sont kan moo mën a mobiliser kii askan bi fi ñëw kan moo oto yi depuis suba oto yaa ngi ñëw kan moo leen mën a andi kii weddi nañ ko. opposition nañu dem noppalu fii ba deux mille cinquante réew ñun ñoo ko moom te wuy ma ah. te Sonko amul lu ma jaralu di sa caravane de la liberté yu ñu victime yi ñu dàkkoon Vélingara fa laa boobu maa ngi Sonko moo jaral réew mi jaral lu ne te lépp Sonko laajte fii bàyyi lu mu daboon li ah, ñu dañ koy bu soob yàlla na jàmm yàgg ah bi ah Casamance ñu ngi de ah pare nañ bu baax sax pare nañ bu baax. bu nekkoon opposition moo ëpp doole fii. ëpp doole fii de ñun. bàyyi de si biir amu fi. ma ne la fii Pastef moo fi ne. Pastef kese kese kese. opposition amu fi ñoom ñëpp dañoo daw. ñëpp a daw ñëpp a daw. kon ko ñoo top ma ma xool fan laay installé wu. waaw dama bëgg a yóbbante dara si Amar Haidara ngeen laaj ma bisimilah boobu léegi lan la koy wax bisimilah borom cuulaay dëmb bi ñëw naa <laughs> mais président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo fay. organisation bi lan la. macha allah le président l'universel l'international mooy ñëw fii moo waral Casamance yëpp ñëw daje fii di koy xaar depuis 9 heures ñëpp gaay ñu ngi fii jóge Bignona jóge Oussouye ñëw xaar ko il est presque minuit moins c'est vu son importance parce que nit ñi dañu gëm projet. tey def nañu macha allah def nañu très fort délégation. nous nous venons de la commune de Koubalan. Koubalan de Koubalan oui. dans xam nga ne Ahmed la àndal. am boobu. am na tey mu xar fii de. ah macha allah. anam bismillah. anamu. Ah, am ba macha allah koy xaar fii. waaw macha allah bëgg ngeen ko. bëgg nañ ko bu baax. xam ngeen bëgg Ahmed Aidara. non revue de presse am. Ah. muy wax dëgg ñoo lay fay. maa leen di fay. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ah Ousmane Sonko fu mu ne kay kontaan rek. mais ñu waxoon ne nit ñi weddi nañ ko lool loolu tontu. <laughs> ñooñu moom dañuy wax lu kan moo ko mën a weddi. waaw dañuy wax lu leen neex rek waaw. yàlla jàmm yàgg. bi bi si ñëwal. yaa maa lay nuyu. ñu noo gisee Ousmane Sonko tey. ah macha allah ñu koy kontaan. kontaan nañ ñun ñëpp kontaan ci Ousmane Sonko. noo gisee nu mu dugg see tey dugg si doole bi. dugg si am na doole. am na doole yal na ko yàlla dimbale. seen mobilisation lan la. suñ mobilisation mobilisation bi pour mu gagné assemblée nationale bi. kon pare ngeen. bu ñu ñëwee fii nu du ñu am dara. te ñaanuñu ñu am dara. ñoo fi nekk. maaleykum salaam. naka yi tey. sant yàlla. tur bi noonu. tur Sarata Badji. noo gisee Ousmane Sonko jamono bi. macha allah xanaa mbégte rek. de kontaan te yal na ko yàlla may lu mu bëgg. na Casamance dem ca kanam Sénégal dem ca kanam loolu rek la ñu bëgg fi ci Ousmane Sonko nañu defal Sénégal ba mu rek loolu la ñu la bëgg. Ziguinchor mi ngi xar. ba ñaari yoon kay lépp fépp tas instant fépp tas moom Ziguinchor moom ba Casamance lépp depuis Casamance fu mu daj ba depuis Kédougou ba fenn fu mu nekk fii nii lay gërëm. ñu ngi lay gërëm tamit. merci beaucoup. doo ñëwal. maa ko mu ñëw maa ko mu ñëw. oh. maa ko mu ñëw. déjà bii bii la sonné. maa lay nuyu. ça va maa ngi lay fay. tey loo yëg. bégte rek. dañuy mën moo fi maa lay nuyu. lay fay. tey moom métti la am fii suñu. ñoo gisee Ousmane ñu koy xaar depuis boobu ba kañ ñu koy xaar. waaw waaw toog. gannaaw maa ngi lay nuyu. mbégte ak contentement ñun ñooy Pastef UAZ. ñu ñëw def mobilisation ñëw. accueillir le président Ousmane Sonko waaw gi ngeen mbooloo mi tey moom rek la ñuy xaar ñu ñëw ñu neexal waaw. Sonko Sonko. Sonko. Sonko kontaan nañu. Sonko rek. Ah, Sonko rek. Ah, kontaan naa kontaan naa Sonko moo ko waral lay fay ñu ngi la dañoo ñëw ci meeting bi say di teeru suñu leader suñu premier ministre Ousmane Sonko te xam ne moom mooy solution Sénégal maa lay nuyu fay nañ la fay Ousmane Sonko madame Diop Oumy Bibi Diallo xol bee sedd ndeysaan mais doye maa ngi nii président. ñu ngi lay fay ak mobilisation. waaw mais deux deux fois ak moom ba solidarité incha allah lépp lu mu bëgg bu neexee yàlla ànd ak moom liggéey Sénégal loolu ñu. bu yàgg. yàlla jàmm. nee na xolam dafa merci beaucoup su ko defee ñoo ngi salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo gisee Ousmane Sonko. xanaa kontaan rek. kontaan rek ca kaw ca kanam. mais ñu Sonko amul doole fii est ce loolu dañu doon tooñ rek. ëpp na doole bu fi nekk doole bu fi nekk ëpp na. waxal sama xol bi dafa sedd mel ni glace Sonko mun ma laa wax fii dara waa kontaan rek ci ñaanal ko yàlla fi mu yóbbu dëkk bi fu mu bëgg a yóbbu na réussir rek la ñaan te nañ ni fu mu nekk ni yóbbu fu baax la jëm te yóbbu ko mu defo ba léegi développé ci loolu la jëm kon nag yàlla nañ ko ci yàlla may ndam yàlla xanaa kontaan rek kontaan rek si kaw si kanam yéen ko yàlla jàppale bu ñu demee élection ñu gañe ko si teel ñëpp kontaan. fay naa la. mbaxana bi lan la. fay naa la. kontaan rek. ñooy gañe kay ndam rek kontaan rek. seen sañse la. ah sañse bi xanaa sonko rek. sonko rek. sonko rek. su ko defee nga ñëwal ma ci VIP bi ma ñëw gis gars yi xool mais papa papa maa ngi lay nuyu. ça va. waaw xanaa kontaan. kontaan naa trop. ñoo gisee naa ko. gis ba pare ngeen. waaw pare bi. waaw na jàmm yàgg.

gars yi nee Sonko nit yi dañ ko rek <laughs> moom kay yàlla moo ko may. ah maa ngi lay fay. Ousmane Sonko. ah Ousmane Sonko alhamdulilah Sonko jàmm la defañ koy indi pour defar réew defar euh, askan defar mbo eh, réew mi pour naat loolu la eh, yàlla indi Ousmane maa lay gërëm di la sant merci beaucoup merci toppal ma projecteur bi mais actuellement dafa mel ni waa Ziguinchor dañu nekk di nelaw parce que instant yi balaa souffrance Ousmane Sonko kay jaral nañu lépp Ousmane Sonko moo tax ñi bàyyi lépp ñu ñëw fii vive am ko merci. jërëjëf. tey foo sànni mbaxtu mu tàkk tey foo sànni mbàkku mu tàkk Ziguinchor def nañ une forte mobilisation di xaar ki nga xam ne mooy seen doom donte yegsi na bu ko defee Ousmane Sonko ñëw na léegi nag ñu continuer di jee xool li nga xam ne mooy réaction yi. maa ngi lay nuyu. ndeysaan. nan ngeen di loolu. ah ñun dee ñu ñëw da a bi dafa ne torop ñun daal Sonko la ñuy xaar bu mu ñëw waaw. maa lay nuyu. jël ah, ñu yëg daal bés bu baax la bu neex la ndax Sonko mooy ñëw. ah ñun de ñu yëg coono nañu coono nañu sonn nañu waaye li ñu bëggoon jàmm rek la ñu bëggoon moom la ñu ñaan. ma am ci dëkk bi ndax Sénégal ak Casamance ñun yëpp benn lañu. jërëjëf ma mère kontaan nañu si moom. waa jànga way way way wu rëy. looloo bi bëri na trop. jigéen soore la dëgg la jigéen soor bi yaaw jigéen soor léegi morso bi morso bu bees la voilà patriote ñoo ko moom jigéen delloo ko delloo ko delloo ko jigéen. di yëngu kay dugg peese. DJ Gora le international ndeysaan maa ngi seen benn drapeau mais grand maa bien mais loo tey xamoo lu may mën a yëg mënu ma ko exprimer wu tey loo yëg tey mbégte la ñuy yëg quoi mbégte loo gisee dama ko seen rek mais gisaguma ko mais bu ma ko gisee wóor na Pro taxaw na jamono bi kontaan naa trop ci moom mais ñu ngi koy xaar pare ngeen pare ngeen yàgg na opposition bi nee na nga amatul woon dara na ñu ñëw fii xam bu ñu ñëwee fii day wow konk si ñoom du ñu am dara Pastef ci kaw ci kanam Pastef ala fii waaw bi Pastef bi Pastef topp ma jàmbaar jaa na maa ngi lay nuyu. maa lay fay. l'international tey loo yëg. waaw tey mbégte rek nañ yëg ndaxte Casa boo fi duggee rek verdure moo lay njëkk a attaqué tey jii dënn yëpp dafa neexaat ndax le retour de Ousmane Sonko fii si dëkkam vraiment nga gis mbooloo mi nii ni ñu ak dëkk yu ndaw yi jaar yëpp ngeen gis niñ ko gàttanoo wane seen nammeel si moom vraiment defuñu leen lu dul kontaan rek. ma gis communication ni mu au niveau national fu ñu dem li ngay wax bokk la la may sa secret. waaw sama secret lenn rek la li may may doole mooy bu ma ko gisee waa ji rek sama xool day sedd ba lu ma def rek xeeb ko moom mooy sama secret ndaxte moom la ñuy topp te dafa doon koo xamante ni ku jar topp la ndax am na fit. te li muy def bëgg na ko te am na yéene si dëkk bi. noo gis mbooloo bi tey suma waxoon nga ma ni ma tey balaa ñoo dugg Casamance gee waaw da ko yëgoon doon naa leen ko wax nee naa leen parce que dëkkam lay ñëwaat te dëkk yu ndaw yi rek ni ko doon xaare vraiment macha allah te dafa guddee dugg si sax bu doon bëccëg gi si lay gën a doy waar mais eh, xam naa rek incha si kanam ma yéeg si kaw seen bi. laf cat fu seenee jàkkaarloo waa Ziguinne Sor. laf cat laf cat laf cat laf cat laf cat lafati cat. yàlla jàmm yàgg kookoy laf cat. boo leen xoolee. waaw. Euh, ndeysaan toog nii waaw. ñii waaw ñoo doon dékku grenade lacrymogène yi ndeysaan jamono gi nga xam ne Ousmane waaw ñu ngi ko tëj neema ndeysaan euh, ñii ñoo doon xëy suba ba ngoon doon way ndeysaan ñii waaw mooy les femmes Kabrousse ndeysaan gis ñoom ñëpp ñu solo en noir waral la en noir bi bi laaj leen dema naa gën a salaamaaleykum Ousmane Sonko. Ousmane Sonko xale bu yaru la. xale bu yaru la xale doon. xale bu mun yërëmande Casamance. la waaw. ba pare ngeen. ko bañ rek xanaa nga dee. ba ah, ko bañ nga dee. salaamaaleykum. ma mère nuyu. tey nañ la. noo def. alhamdulilah lay sant di. kay moom ku bañ réew moo bañ boppam ma ne Sonko ku ko bañ da dee sa xol bi day day day day jee te mun dara. léegi daal dafa mel ni Sonko ngi ñëw. ñun Sonko rek la ñu Sonko rek. dafa da ngay waaye ñëw. mais fii ba ba ba midi ñu ngi fii. midi ci suba. ñu ngi fii. maire la yoon fii. maire fii ba midi ci suba. wala fii. lay ñëw. waaw waaw booy meer lay wax. nañ d'accord nañu. fii ngay toog wala ngay dem ñëwaat. waaw fii fii. doo dem ñëwaat. moom. naa sama yaay li mu wax gars yi tàmbali wa jóg na. mbir lii cosaan la culture la et dans mooy li nga xam ne moom nekk li ñu nekk di ji. mais presse bu ñuy ñëw ñun bu ñu amul image su ñu jëlee image. ci suma loxo si kaw na baax na sama am naa kii très peu. ndeysaan. kuul. gaa yaa gaa yaa ngay gaa yaa gaa ñaa ngay go. ndeysaan gaa yaa ngay benn maa ngi ziar maa ngi la gis nga ne tekk rek lan la ah lii de moom euh, fierté la rek fierté la et euh, sant yàlla quoi lii euh, on dit que moom daanaka moom yemalewuñu ko ak kenn te xam nañu lii di set moom à 18 heures day fekk yi regle na wu looy wax ni waaw à 18 ah, gars yi nee nañu ay nitam dañoo wàññi. non non dama ne jeex na bu yokkul gisoo dafa gën a yokku sa lii masta am lii mës ta am fii mooy feefu révolution révolution bi combat bi fii la fii mooy Lindiane fii jamono combat yi bu mu doon tàng police ñeme ñëw donc Lindiane fii mooy fii mooy Ousmane Sonko fii fii ñi Sonko Lindiane ñoo yor Sonko su ko daf daa yokku. wàññeeku du kii bu yokku la sant. président maa ngi lay nuyu. Ah, sant bu baax a baax maa ngi sant yàlla. noo gisee Ousmane Sonko. ah nii fii Ziguinchor moom kay kontaan nañu mais dama bëgg a leeral benn euh, affaire tuuti. Eh, nu gis Karan. ni ñuy gis Karan. ni ñuy gis Gossas. ni ñuy ni ñuy gis Gossas. Ahmed Aïdara yegg si na xaaral Ahmed ana Ahmed ana Ahmed. ana Ahmed. ndeysaan dama jékki-jékki na Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara na ndeysaan. s'il te plaît. meeru Guédiawaye Ahmed Aïdara yegsi na na. ndeysaan l'incontournable yegsi na